maa ngi lay fay. li nga sañse ni lan la. simple rek gis ngeen man yaay Fall laa taalibe Serigne Touba laa waaw gis nga dama simple rek gis nga dama simple rek dama simple rek man xam ngeen ma wan ñëpp xam nañ ne damaa simple Sénégal gépp xam nañ ne damaa simple. waaw yéen temps yi moom du ma ne da nga xew baaxul de téye bi moom baax baax na téye baaxul de téye baaxul bàyyi ma bokk ci rek ci biir gaañi ah. waa di sëmbaxloo noonu du la neex. Ah. waaw kay. tout gis nañ la nga daal di def appel ak Dieyna jékki-jékki daal di jooy lu waral li ni mel. waaw dara waralu ko ndeysaan dama xam fi mu jaar man dama faa jaar parce que dafa am kàddu gu mu wax mu ne nañu bàyyi xel doomam metti na trop ci yaayam daf ma daf ma fàttali man tamit parce que dama caa jaar moo tax loolu rek moo tax ma jooy. dafa mel ni dala fàttali jamono gu métti gi nga dund ci guddi temps. waaw waaw fàttali ma ko mais may sant yàlla rek fàttali na ma ko mais may sant yàlla moo tax ma wax ci. Mm. waaw. Ah, jamono ji nag Ndeye Gueye showbiz bi doy na waar loolu bari na coow rivalité bi entre artistes metti na ah, mën naa ne kéem lañ ko daal di def léegi yow noo dundee loolu. man de wax fa dëgg yàlla man gay Ndiora man ku ma xam xam ne showbiz bi mbëkkante gi ñu nekk man nekkuma ci dañuy doorante ay bopp te man newuma ci waaye ku ba ku doo soxor déggoo li ma la wax. géem man a se culture nu mu tudd mbalax showbiz bi mbalax bi géem laa ko wax geem ñoo raw rappeurs yi géem bëggante wuñu dégg bëggante wuñu lu waral li parce que ñàkk bëggante mooy tey su sa morom am lu sa morom am nga iñ nga ne waru ko am lu sa morom am nga ne du ko am loolu moo waral bëggante wuñu parce que kenn yéenewul sa morom jàmm am na ci ñoo xamante ni yéenewuñ kenn jàmm waaw loolu laa wax waaw waaw c'est que il faut ma leeral ko ah parce que man man je triche pas man ciment laa benn yoon lay tooy man dama bëgg waali Seck en door de tout ça dama ko bëgg am ci moom yërmande ñeental ko déglu leen bu baax li may wax ñeental ko bi ma demee toog tooguma sax fi artistes yi di toog sama xarit laa àndal Fatoumata Fouta Ndiaye tampi mu jël table ma dem toog moom ba Waly Seck wayee micro kii lamp yi jóg flamme yi jóg xale yi di jooy am ñu toogoon sama suuf noonu samay rangooñ wadd mënatuma ko téye parce que yërmande gu ma am ci moom la ak kontante gu ma am ak ni stade bi feesee ba ñu bari dugguñu loolu moo ma jooyloo waaw nañ ko nañ ko ko man doxuma ci yo man soxlawuma bës ndax ba may bës boobu benn xale bësul nag maa ngi way wax de ba may bës boobu kenn bësul soxlawuma buzz j'ai pas besoin de buzz mm. non mais waaw mais lan laay mais yow c'est quoi ton problème toi non mais loolu du question c'est pas une question ça non non non nga may gisa ak Fatoumata Fouta Tampi damaa bëgg buzz non non c'est ma sœur déglu ma c'est ma sœur yow sax xàmmewu ma la ci gaañi ayda naa la xàmme tey ci gaañi Aïda oh Sénégal noonu lay mën a demee kay xàmme naa la tey ci gaañi dinaa la ràññee. mais dul waxal kii kan. d'accord d'accord kan. dama koy song de nii nii. non jarul song kee xeex ndax question la. Hmm. topp topp surtout site internet yi. topp site internet yi. maanaam Feeling Dakar jamono waaw mais Feeling Dakar damay liggéey ñu may fay weer. Hmm. sal noo may xaar jami xaaral jami xaaral yow rek la rek damaa dugg Feeling Dakar ñu may fay man du ma du ma du yàq sama temps ci rien du tout. Hmm. sama place dafa am ñu ma fa teg ñu may liggéeyal di ma ñawal. su ma amee lu may livré ma yabal sama livreur petit jéey mu livré ko mbaa Ibou Sène livré ko mbaa papa bu amee temps taal motoom yóbbul ma ko man noonu laay liggéeyee su ma amee sama liggéey bu ma war a dem def dem defi ko mais aar taxul ma bàyyi sama place mm-hmm. ndax aara ma may place boobu tey tamit jot neex na d'accord euh, showbiz sama rakk la sama xarit maa xam nga ni Pikine la dëkk doomu Pikine la Fuuta la dëkk mais Pikine la Pikine la doon fa la nekkoon ma perte ko de vue nag Assane mi ma àndal nii tey la woo ni ko dimbali ma ngir yàlla ndéygee bu ñëwee bu bu ngeen ah, day ñëw Kaolack dégg na mais indil ma ko mu dal ci man Assane woo ma paas ma ko mu ne ma dimbali ma ngir yàlla nga ñëw dal ci man looloo waral ma dal ci moom moo ma wër mu nekk nit ku baax nag ku bëgg réew ku bëgg président Macky Sall kuy jàppale président Macky Sall ba man ma dem di jàppale ji président mak Sall wax ji jeex exclusivité pour ngeen jot ci tey bàyyi naa maa ngi ci ginnaaw président Macky Sall ak Marème Faye Sall man da loo ma gis ma fekk Jami. Euh, Jami. Jami suñu le 23 bi bu passé dinaa jubilé invité nañu leen ñeen ñëpp site internet yëpp le 23 novembre le 23 décembre bi association des danseurs mbalax et chorégraphes ñoo ñoo organisé soirée bu rëy fecckat yu mag yëpp nag ñëpp ñu bari jóge nañu Europe ñëw ndax soirée bi ñu ci invité ñëpp fële ca Five waaw jami dinaa jubile léegi. sa digganteeg Sidi Diop lan la gis nañ jamono ji Jokalante Jokalante bi. <coughs> pour lan jax na parce que yow gisoon nañu tout récemment mu ngi tëggoon euh, soirée nga ni invité wu la. dañ maa def <laughs> conférence de presse lii lan la. non mais dañoo gisoon occasion la ñu laaj la ko parce que gisoon nañ mu tëgg soirée am ñu gis ci ndaanaan yëpp gisuñu la bi nga toogee. bi nga toogee kenn ñaar kenn dina ci wax kenn bàyyi kenn nopp bi nga toogee sa plateau yow nga ni invité wuñ la moo tax tegoo fa tànk moom it ñi daal di ko dékk micro mu daal di waroo xaar sax ñu invité la ba am yenn wax yum ci teg sa relation lan la exactement. Sidi Diop sama rakk la lu mën am sama rakk lay doom te duma ma jokkalanteeg jokko maa jokkalee rek Sidi Diop parce que sama doom la maako ko yar sama rakk la sama xarit la bu tëggee su ma yëgaleeg su ma yëgalu su ma amee envie dem dinaa dem wax ji jeex na. waaw xaaratuma léegi mu yëgal gis ne tout le temps ni ngeen meloon mais léegi dafa mel non ni ñu mel mais kenn ku nekk amul jot chéri kenn amul jot mu ngi ci waaram maa ngi ci waaram maa ngi sama waar kenn amul jot kenn amul jot di jot amul de jeex na mën naa dem <laughs> journaliste yi da ngaa am jom gëm sa bopp da ngaa gëm sa man gëmuma la ndax yow sa yaaya ma bëgg seen kër lu fa xew sa yaay day wàññi ay jasneer ay brodé ay tissu ay voile di ma may ay vax yëkkati xaalis tegal ma ci keroog ba sa baay gaa gaañoo fekkuma Sénégal waaye ba ma ñibbisee damaa ñëw sa yaay teral ma say ma te dëj laa ñëw ñu teral ma ci dëj ba kenn musu gis sa famille def loolu mbokk ndey Issa Gueye sama rakk ji sëyal ba dee sëy rek ay dëgg li ci des li ci loolu yëpp li ci ginnaaw dëgg yëpp ay caaxaan la sëy mooy dëgg sëyal ki la yàlla booleel jàpp ko jigéen day sagoo jëkkëram di ko fasal fu mu toll waaye doo sag doo doo fësal sa jëkkër kenn du xam ne am nga jëkkër ni dee ko fësal dee ko fësal dee ko fësal mais lu yomb ko dama gaaw barke Seydina Mouhamed dama gaaw a jooy sama xol moo feuy balance sama xol moo balance jëkkër dee ko fësal dee ko fësal dee ko fësal